les enfants ont des besoins spécifiques et chaque enfant a des droits fondamentaux en matière de soins, d'éducation, de justice, de protection sociale. Partout, les enfants subissent au quotidien toute forme de violence et en cette période de pandémie, nous sommes plus exposés. Ne négligez pas nos droits durant cette période de Covid. Protégez tous les enfants contre toutes les formes de violence physique, sexuelle, psychologique, négligence, Notre opinion n'a pas été prise en compte durant cette période. La covid ne doit pas confiner nos droits, respecter nos droits fondamentaux. Droit à l'égalité, droit à une famille, à la protection, droit à l'éducation, droit au loisir, droit à l'expression. Les enfants, l'AGS et Save the Children, tous ensemble pour mettre en avant l'intérêt supérieur de l'enfant durant cette période de Covid. mbokk xarit yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen dalal seen xarit Afia FM di amaan mbégte te waa din fii ngir waxtaanee wàllum violence basée sur le genre ci jamonoy euh, Covid euh, tey ji nag ñuy euh, ànd ak ñi nga xamante ni ñoo di waa boutique de droit bu pikin ñoom la ñuy ànd ak ci waxtaan wi na xam ngeen émission la boo xamante ni rajo Afia FM moo leen koy diktal en collaboration avec AGS muy kuréel gi nga xamante ni moo ëmb jigéen yi yëngu ci wàllum yoon nekk fii ci Sénégal tey ki ñuy dalal mooy. ma jigéen Sarr moom mooy coordonnatrice boutique de droit bu Pikine soxna ma jigéen nuyu na la. waaw maa ngi leen di fay bu baax yéen waa rajo Afia FM di leen di nuyu di nuyu seen auditeurs yi ak seen auditrices yi di rafetlu seet si bi ngeen ñu seet si maa ngi tudd Ndeye ma jigéen Sarr madame Bakhoum nekk juriste consultante nekk fii aussi coordonnatrice boutique de droit bu Pikine. soxna ma jigéen dañuy tàmbali waxtaan bi fi si tàmbalee mooy ñu jéem a leeral boutique de droit ah, gis na ni bëri ngeen lool ci Sénégal. Euh, foo dem ci gox yu bari di nga fa fekk ay boutique de droit mën nañ xam seen euh, taxawaay bi nga xamante ne moom ngeen euh, taxawaw askan wi lan la lan mooy seen njëriñ. waa cër jërëjëf ci question boobu boutique de droit nag du lenn lu dul centre la boo xam ne muy ay makkaan ay bureau yoo xam ne dañ ko teg di fi déglu. muy centre d'écoute de conseil et d'orientation juridico-judiciaire su ma koy tekki mooy ay makkaan yoo xam ne dañ ko teg pour jege askan wi pour jàppale leen ci lépp loo xam ne ci seeni soxla la ak ci seeni mbébét jëm ci wàllu yoon euh, li tax nag ñu tuddee ko boutique euh, mooy que ne boutique dafa jege askan wi ndax tey koñ boo dugg wala bopp koñ boo taxaw di nga gis boutique te boutique loo am boo duggee di nga ko mën a jëndee fii nag boutique yi nag ñu teg ñun samp ko ànd ceeg suñuy partenaire loo fi ñu la fi defal wala loo fi ut si lépp dañ la koy defal gratuitement mooy dañ lay jàppale taxaw la te doo fay dara donc centre yooyu ñu ngi ko teg ànd ceeg ministère de la femme de la famille et du genre et la protection de l'enfance ak aussi suñuy partenaires yoo xam ne les partenaires technique et financiers yi nga xam ne ñoom ñoo ci ciy gunge pour ñu mën a ñoŋal liggéey bi mais aussi taxawu askan wi dañuy liggéey assistance la donc assistance la orientation la te ci liggéey boobu pour mu ñëw dafa am équipe bu fi nekk équipe boo xam ne ay juriste ñoo fi nekk mooy ñi nga xam ne seen xel dafa màcc jëm ci wàllu yoon ñoo xam ne dañ fi relais wu du lundi au vendredi 9h ba 5h ba 17 pour taxawu askan wi conseiller leen jàppale leen ci lépp loo xam ne procédure la walla assistance la mooy lu jëm ci wàllu avocat mooy lu jëm ci wàll huissier lépp loo xam ne dañ ko war a walla mbind yi war a dem ci biir tribunal foofu boo ñëwee dañ la koy defaral gratuitement. Euh, wàllum jafe-jafe yi nga xamante ne askan wi ñu koy dund bokk na ci wàllum euh, fitna maanaam violence ngeen ciy liggéey. waaw xam nga buñ ne suñu liggéey sax en tant que juriste. fitna yooyu moo ci ëpp parce que liñ ne yoon aussi dafa sew bëri ay xóot-xóot te jigéen ñu bëri tamit dañuy jànkonte ay jafe-jafe duñu xam fu ñuy dem naam jigéen ñi sax mais population bi en général mais rawatina jigéen ñi ak xale yi euh, centre yooyu nag biñ ni kuréel gi comme niñ ko waxee ndax boutique bi dafa bokk ci association des juristes sénégalaises ñoo ko taxawal donc association boo xam ne daf fi nekk depuis 1974 di xeex lépp lu jëm ci àq ak yelleefu doomu aadama rawatina bu jigéen ak bu xale. donc tey jii buñ nee violence ñu bëri dañuy dégg violence peut-être te xamuñu ko donc violence du lenn lu dul bépp xeetu métital boo xam ne dañ koy teg doomu aadama. donc métital lépp luy métital ñu di ko teg doomu aadama moom la ñuy wax violence. Mm-hmm. ñu ngi wax tamit violence basée sur le genre bu ñu ne violence basée sur le genre nag góor a ngi ci jigéen a ngi ci mais rawatina jigéen ak xale donc mooy xeetu méttal boo xam ne dañ koy teg nit ki ndax jigéen la wala ndax góor la donc yooyu noonu dañ ciy jànkonteel chaque jour te wax dëgg yàlla mooy constituer presque suñu liggéey lépp ci loolu nag am na noo xam ne dañ koy taxawee mooy dañuy def assistance comme ni ma la ko waxee sànq si suñu njëlbeen wax mais dañuy def orientation mais dañuy def lépp loo xam ne tamit dafa jëm ci médiation mooy waxtaan mooy gunge nit ki ba loolu noonu nga xam ne violence la day bafoué ak ak yelleefu doomu aadama boobu ñu mën ko saafara ci nu mu gënee. ci wàllum ci xeetu fitna yooyu yenn euh, xeet luñ ci gën a nemmeeku. waaw buñ nee violence moom bëri na. bëri na bëri nay forme mooy ay ñu koy mandarga yi ñu koy xàmmewee ci mandarga yi am na lu ñuy wax les violences physiques mooy violence yi nga xam ne moo jëm ci wàllu yaram ci jëmm ne aadama bi lay feeñ am na li ñuy wax les violences psychologiques et morales mooy métital yi nga xam ne dafa jëm ci wàllu xel euh, ak xolu nit ki am na violence yi nga xam ne moom la ñuy wax les violences sexuelles te temps yi aussi mu bari lool mooy yi nga xam ne dafa jëm ci wàll awra donc euh, comme bu ñu nee violence am na les violences économique mooy li jëm ci wàllu koppar. tey bu ñu nee violence physique du lenn lu dul mën na doon dóor yi mën na doon sa jam yi mën na doon euh, gaañ gaañ yi tuur dóor tuur bëtu nit ki dóor damm ba ñu nit ki donc yooyu yëpp ay violence physique la buñ ne nee violence euh, sexuelle bi ci gën a ràññee mooy viol bi nga xam ne temps yi lëmbee na réew mi te am nañ ci loi bu bees boo xam ne ñëw na sax pour gën a yokk daani yi muy la loi criminalisant le viol et la pédophilie mm-hmm. bi nga xam ne mooy loi 2020 05 bi ñu adopté en janvier 2020 mm-hmm. am nañ aussi euh, pédophilie am nañ ay harcèlement sexuel am nañ tamit ay attentat à la pudeur mooy yooyu yëpp ay ci xeetu violence sexuelle yi mettital yi jëm ci wàllu awra la mm-hmm. am nañ aussi li ñuy wax les violences économiques yi nga xam ne ci wàllu koom-koom la comme ki nga xam ne dafa war a dundal njabootam du dundal njabootam war a fay pension alimentaire du nangu fay pension donc yooyu noonu yëpp mooy métital yi jëm ci wàll euh, économie wàllu koom wala nga gis koo xam ne dafay abandonné njabootam donc loolu noonu am euh, violence économique la am na ñuy wax les violences psychologiques et morales mooy yi nga xam ne dafa jëm ci wàllu xel mooy ñu koo xam ne day ñëw jël njabootam di ko mettital wala jël soxnaam di ko wax wax yu bon wala borom këram loolu yëpp ay xeetu violence la yoo xam ne dafa jëm ci wàll xel ak xalaat wax yu bon saaga menacé tuutal nit ki donc yooyu yëpp ay xeetu métital la yoo xam ne dafa jëm ci wàll xel donc yooyu daal mooy xeet yi nga xam ne moo gën a fës ak métital yi nga xam ne dafa am ci diggante wa ñaari way dencante yi violence conjugale yi waa dóor yi rey yi saaga yooyu yëpp métital yoo xam ne daal am ci waay ñaari way dencante yi te du loo xam ne rafetlu nañ ko te du loo xam ne aussi yoon nangu na ko. ñu nekk si jamono joo xamante ni xam nañ ko coronavirus moo lëmbee àdduna euh, pikin bokk na ci gox yi nga xamante ni wàllum violence bari na fi fës na fi surtout lu ci mel ni viole wala pédophilie euh, yéen jamono ji ak euh, Covid bi ni ma taxawee liggéey bi fan la toll ak wàllum fitna yooyu nga xamante ni leen kay nemmeeku. waa xam nga comme ni nga ko waxee Covid bi dafa nekk loo xam ne xëy na dafa kenn xaaruñ ko mais tamit dafa ñëw fekk fi benn contexte mooy xëy na dañu nekk ci banlieue te xam nañ ne aussi cas yi cas de violence yi bari na fi. Mm-hmm. donc chaque jour xëy na dañuy rencontrer ay cas yu jëmee noonu te Covid bi peut-être am na xëy na lu mu ci yokk ndax. pandémie fu mu am wala crise fu mu am wala situation bi nga xam ne Covid bi andi na ko muy sur le plan psychologique nit ñi stressé nañ mhm. sur le plan économique nit ñi koom-koom gi wàññeeku na ndax dañu am ralentissement économique am na ñoo xam ne dañu waroon liggéey liggéeyi wuñu donc yooyu yëpp am na ñoo xam ne aussi cohabitation bi xëy na dem na ba andi fitna wala yokk fitna seen biir donc yooyu yëpp rencontrer nañ ko ci periode Covid bi te gis nañ ne Covid bi indi na ko mm-hmm. ci loolu nag euh, AJS ak boutique de droit bu pikin wàccuñu askan wi noonu dañu continuer liggéey bi naam xam nañ ne situation bu exceptionnelle la euh, maladie boo xam ne aussi wala pandémie boo xam ne xamuñu ni ñu ko peut-être en charge bi ni mu war a demee au tout début benn moment tamit arrêté nañ liggéey bi donc recevoir atuñu suñu bitik waaye dañu continuer di recevoir nit ñi wala di leen di déglu à partir de nos de no téléphones mooy que ne tëj nañ màkkaan waaye dañu continuer continuer liggéey bi di jël téléphone di wuy nit ñi ñu am numéro vert boo xam ne dañ ko jagleel askan wi mooy numéro vertu AJS buy le 800 805 805 ñu continuer muy fonctionner ñu di ci wuy population bi mais aussi suñu numéro personnel yi nga xam ne moom la ñuy wuyoo ci boutique de droit bi muy le 33 834 24 30 wala 76 bi donc fexe ba askan wi daal nu ñu def rek pour am continuité ci seen service yi nga xam ne war nañ leen ko mën a rendre donc loolu daal contexte bi nga xam ne Covid bi andi na ko te aussi fexe nañ nuñ ko mën a saafaroo taxaw ci pour askan bi bañ ko mën a yëg bu baax. Euh, ci wàllum jigéen ñi xam na ni jigéen dañuy yëngu bu baax ci wàllum koom euh, Pikine bari na ay marché yoo xamante ne am na fii am na marché Sandaga marché Kermel am na marché euh, Thiaroye marché yooyu boo bu ne jigéen nga fay fekk muy dóor waar macha allah ci jigéen yooyu nga xamante ni Covid bi am na lum yàq as lëf si seen liggéey. yi est-ce que am ngeen si ñoom benn taxaw boo xamante ni taxawu ngeen leen ngir dimbali leen ci ci Covid bi ngir ñu bañ ko yëg. Mhm. waaw gannaaw ba ñu continuer wëyal numéro vert bi. continuer aussi di assister population bi dañu dem tamit def loo xam ne dañ ci ànd ak suñuy partenaires comme FGS comme ñeneen ñi ñeneen ñi pour euh, gunge leen. pour jàppale leen ànd nañ ci waa ministère. ànd nañ ceeg waa UNFPA ànd nañ ceeg acteurs yu bari yoo xam ne dañ gunge pour rek ñoŋal assistance bi donc AJS aussi débloqué euh, koppar bu bari moom aussi ñëw en napp appui muy économiquement ñu fexe ba pois bi nga xam ne Covid bi am na ko ci sur le plan économique jëmale ko ci jigéen ñi. Mm. comme ni ma ko waxee sànq seen liggéey wàññeeku. donc yeneen ak yeneen tegu seen kaw te tey xam nañ ni kër yu bari jigéen ñi ñoo ko yor njaboot yu bari jigéen ñi ñoo leen di jàppale. donc sur ñu def ay pañe de la ménagère def appui boo xam ne dina am ceeb dina am diwlin dina am suukar dina am tout le nécessaire bi nga xam ne xëy na jigéen ñi soxla nañ ko wala pour jëfandikoo ko comme dem beeg dikk bi à un moment donné limité nañ ko ñu fexe jàppale leen ci. pour que ñu bañ a yëg poids bi tuuti tuuti soulager leen mhm. mais aussi continuer suñu liggéey mooy képp ku nga xam ne jigéen la wala képp ku nga xam ne xale la am jafe-jafe ñu mën la defal orientation ci service yoo xam ne mën nañ la mën nañ la jàppale mhm. fàttali rek mbokk yi ñu ngi seen émission bi nga xamante ni rajo Afia FM moo leen ko digtal seen collaboration ak waa AGS di kuréel yi nga xamante ni moo ëmb jigéen yi liggéey ci wàllum yoon nekk fii Sénégal ñuy dalal tey Ndeye Madjiguène euh, Sarr nekk coronatrice bu boutique de droit bu Pikine euh, Madjiguène euh, ci wàllum sensibilisation bi ci la ñuy desandi ndax gis nañ am na ay association ay kuréel yu bari yoo xamante ni dañ doon def ay descente sur le terrain ngir waxtaan ak askan wi ngir gën leen ñaax ngir ñu moytuñu ko Covid bi yéen boutique de droit bu Pikine ci wàllum sensibilisation bi lan ngeen si def. waaw ci sensibilisation bi def nañ ay flyers def nañ ay spots. jaarale ko ci canaux de communication yi nga xam ne moo existe mooy que ne def nañ AGS def na ay spots yoo xam ne jàll na Facebook jàll na ci ci ay rajo de la place donc canaux yi nga xam ne rek WhatsApp donc loolu yëpp def nañ ay masques distribuer ko distribuer nañu ay gel donc loolu yëpp tamit ci appuyer rek def communication def sensibilisation pour wan askan wi ne dañu war a moytu dañu war a fàggandiku pour que mën a mucc ci ci li nga xam ne mooy covid bi ci wàllu taxaw bi ci la ñëwaat ndax euh, amoon na jamono joo xamante ni tribunaux yi euh, liggéeyatuñu woon euh, est-ce que loolu amul woon benn blocage bu mu defoon yéen ci seen liggéey ndax gis nañ ni yéen a daawoon utal seen client yi avocat ndax ñoom ci yoon yoon ba suivre dossier bi ba mu jeex mais euh, ñu tëjoon tribunaux yi euh, seen liggéey jamono jooju amoon na obstacle wala. waa xam nga situation bu bett ñëpp la xëy na bett nañu bett na tribunaux yi bett na ñëpp bi mu yegsee aussi xëy na andi ci liggéey bi yëg nañ ko bu baax ci ci ci suñu doxaleenu liggéey ndax tribunaux yi benn moment aussi feebar bi dugg na fa arrêté nañu mm. donc loolu noonu andi na peut-être euh, ralentissement comme ni ma ko waxee sànq ci ci ci liggéey bi te ressentir nañ ko bu baax mais mm, naam am na ci mais fexe nañ toujours di jox justiciable yi conseil bi nga xam ne moom moo war pour mën a euh, pare ak tout toute éventualité wala tout situation mm-hmm. dem nañ ci ba aussi dañ daan def médiation yu bari mooy comme bu ñu tribunal mënul recevoir dañ doon fexe ba képp ku ñu woo am jafe-jafe ci biir néegu sëyam wala am jafe-jafe ci ak boroom këram ñu jël numéro téléphone yi woote waxtaan ak ñaar ñi nga xam ne ñooy ñaari way dentante wala ñaar ñi nga xam ne ñoo dëkk wala mbokk yi dëkk ñu waxtaan ak ñoom def médiation ba wax dëgg fa yàlla def nañ ci trouver nañ ci ay réglé nañ ci ay situation yu bare bare bare te xëy na ñooñu egguñu ci yoon mm-hmm. ñenn ñi nga xam ne aussi am na yenn euh, jafe-jafe yi jël nañ huissier mu def les constats nécessaires wala ñu référer leen vers la police wala vers le procureur de la république pour ñoom ñu mën a jël en charge seen situation wala ñu mën leen a secourir wala ñu man leen a mettre en sécurité en attendant que tribunaux yi di di reprendre seen liggéey. bu xoolee it amoon na fi lu fi am muy couvre-feu euh, à partir de vingt heures ñëpp dañuy toog seen kër mu nekkoon benn cohabitation boo xamante ni mën naa ni euh, ménage yi tàmmuñu ko woon instant ñu imposer leen que euh, vingt heures ñëppay toog ci kër gi euh, est-ce que loolu indiwul fitna wala yokkul fitna yi nga xamante ni euh, moo doon am ci diggante way dencante yi. waa xam nga da ngay gis ñoo xam ne peut-être xëy na ñàkkul ñoo xam ne baax na ci ñoom <laughs> am na ñoo xam ne xëy na fexe na andi rapprochement mm. mais am na ci ñoo xam ne nag tamit andi na jàqare ci ci ci ñoom. Mm. am na ñoo xam ne yokk na fitna. dëgg yàlla jigéen ñoo xam ne dund nañ ci lu metti ci ci ci période boobu jund ci lu metti jund ci lu jafe seen njaboot dund ko ci hmm. donc ni ñi ko jigéen ñi di dundee noonu la ko xale yi dundee aussi hmm. muy loo xam ne aussi rafetlu wuñ ko benn yoon ndax moo tax ñuy wax def ay sensibilisation hmm. def nañ fi ay bande dessinée lépp pour sensibiliser parent yi lépp du du di luy sensibiliser couple yi nga xam ne dañuy nekk ci néegu sëy pour wax leen lii mooy seen i seen i droit ak obligation ci wàll sëy dolli ñaax famille aussi pour ñu gën a def lépp luy xam ne mooy euh, protection yi nga xam ne moo war a jëm ci xale yi nga xam ne ñoo nekk ci biir kër yi ndax confinement boobu tënkul rek mag ñi mais xale yi aussi tënk na leen te gis nañ ne xale yu bëri am nañ ci ay jafe-jafe mm-hmm. donc gis nañ ne am na saay-saay yoo xam ne peut-être ñu ngi ci biir kër yi ak ñoom donc loolu yëpp tamit AJS pour pare à ça naam neewuñ ne amul am na euh, waaye tamit fexe nañ ba def tamit suñu kéemtalaay kattan ci comme ni ma ko waxee utiliser canaux de communication yi nga xam ne fi mu ne nii existé na pour mën a waxtaan ak askan wi def ay les sensibilisation yi nga xam ne moo ci wax. ci Pikine la ñuy waxtaanee ak banlieue gis na ni dafa am benn promise promiscuité bu fi am. Mhm. Euh, kër yi xat trop euh, askan wi ngir ñu toog ci biir kër yi lay metti loolu waral xale yi ñu si bari doon génn benn benn moment fitna gi dëgg la mais xale yi tamit ci ci ci mbedd mi est-ce que indiwul woon tamit benn délinquance juvénile bu gisee ni xale yi dañuy def te kenn du leen gis wala ñuy def te du leen yëg ku xam ne xam na ni Pikine bu ne violence juvénile bari na fi trop xale it wala adolescent yi ci jamono jooju est-ce que doon ngeen traité ay cas yoo xamante ni ci loolu la xale yuy fipp ci heure boobu ndax xam nañ ni euh, dëkk bi wéet na kenn du leen gis waa xam nga am na situation boo xam ne benn moment am na fi mooy que ne xale yoo xam ne dem nañ bay défier attaquer ordre euh, autorité yi mhm. ordre public bi mhm. di def naka sudul noonu ñun nag loolu rafetlu wuñ ko ndax comme ni ma ko waxee ñun ci àq ak yelleef la ñuy dox mais dañuy dox tamit ci ñu respecter loi ak règlement yi mhm. mais aussi nanguwuñu ndax bi yenn mbir yu ñaawteef amee aussi AGS dafa bokk ci kuréel yoo xam ne fépp fu ñaawteef am rek day taxaw décrier ko mooy yuuxu ko wax ne àq ak yelleefu doomu aadama dañ ko war a respecter ci période bu mënti doon muy période pour feu mu période boo xam ne dafa sensible comme période bi nga xam ne Covid gi moo ko moo ko instauré. mais aussi euh, fexe toujours aussi di di waxtaan ak autorités yi parce que xëy na dañuy dañuy gis situation yoo xam ne ñun dañ koy wax xëy na sur le coup mënuñu comme bi makkaan yi dañ ko tëjoon. mënuñu ci réagir mais dañuy fexe jot les autorités comme police wala comme gendarmerie mm-hmm. wala comme yeneen structure yoo xam ne ñu ngi fi mm-hmm. pour ñoom aussi ñu def seen kéem kàttan pour mën a appuyer xale yooyu mm-hmm. di continuer suñu liggéey bi ñu doon liggéey ak tribunal ak procureur yi nga xam ne ñu ngi doon liggéey président de tribunaux yi mais aussi moo yi ak police ak gendarmerie ak yeneen i partenaires yoo xam ne dañ fi nekk sax pour placement ndax am na ñoo xam ne comme li ma ko waxee suñu liggéey assistance dafa dafa romb rek wàllu yoon bi mais sur le plan social dañuy jàppale askan wi te wone nañ ko ci période Covid bi mooy joxe ay kiit joxe appui joxe comme li ñuy wax panier de la ménagère ak ay kit yoo xam ne lépp a ngi ci biir pour yombalal dund bi askan wi mm-hmm. mais aussi. Euh, psychologiquement victime yi wala ñi nga xam ne dañu am jafe-jafe dañ leen defal orientation mm-hmm. yooyu tamit ñu ngi ko continuer woon ak les psychologues yi nga xam ne ñu ngi fi naam amoon na ay jafe-jafe parce que ñu bëri tamit seen liggéey wàññeeku woon na ci période boobu mm-hmm. mais aussi euh, centre de placement yi comme maison rose ak feneen dañ fa daan woote ku am jafe-jafe ñu war la mën a placer loolu yëpp ñu fexe ba askan wi daal situation baa ngi fi waaye ñu fexe nuñ ko oyofalee ci ñoom mm-hmm. xool banlieue bëri na ay gox gox yoo xamante ni dafa bëri fitna euh, bu ngeen di recevoir seeni plainte wala ñi nga xamante ne ñooy ñëw ci yéen di confier yan gox lan nemeeku fii daal situation bi fi mel doy na waar. xam nga bëgguñu li ñuy wax bëgguñu stigmatiser kenn bëgguñu joxoñ baaraamu tuuma kenn waaye li ñu bëgg wax ne mooy violence yi na fi. te bu ñuy wax dañ naan euh, ci département bi yëpp da ngay gis fu ne la nit ñi di jóge mm-hmm. donc euh, ville de Pikine bi yëpp daal bu ñu naan ville de Pikine bi yëpp dañ fiy nit ñi di puisque fu ne la ñuy jóge di ñëw donc amul xaaj ak seen ci loolu li ñu gën suñu message mooy que ne ñu xeex fexe ba xeex violence ak fu mu mënti jóge te te ci loolu looloo tax sax AJS ak boutique de droit bi euh, di def lu ñuy wax causerie di def causerie di def sensibilisation peut période Covid bi du période bu propice pour ñu du ko doon def mais avant Covid bi dañ ko doon def te situation bu gënee calmé wu aussi wala buñ ko gënee maîtriser aussi dañ koy reprendre mooy di dem ci gox goxaat yi di def ay activités de sensibilisation di def causerie di waxtaan ci wàllu violence di waxtaan ci wàllu état civil di waxtaan ci lépp loo xam ne daal day ñoŋal dundu askan wi donc te loolu jógewuñ ci xëy na période bi tamit yombul woon mais comme ni ma ko waxee rek AJS musul teggi loxoom ci ci liggéey bi mooy assistance orientation ak euh, appui bi nga xam ne mi koy andi askan wi. Mm-hmm. ci lépp lu nga xam ne dafa jëm ci wàllu yoon. Mm-hmm. Euh, ci fàttali mbokk yi ba tey yéen a ngi suivre seen émission bi si seen a Afia FM ñu ànd si ak ñi nga xamante ni ñoo di waa AGS tey waa boutique de droit bu Pikine lañ ci àndal ak ki nga xamante ni moo di seen coordonnatrice di Ndeye Madjiguène euh, Sarr ñuy waxtaanee wàllum VBG maanaam violence basée sur le genre ci jamono joo xamante ni ñi ngi wax mbirum Covid 19 maanaam euh, coronavirus ñu wéyal waxtaan wi ba tey ma jigéen ñëwaat ci li nga xamante xamante ni moo di euh, jàngoro ji di Covid 19 boo ñuy xool euh, le 2 mars la duggoon ci Sénégal quatre mois euh, ci bim duggee ci ci ci réew mi ba tey yéen ci quatre mois yooyu tey bi nga doon def évaluation ci violence bi ak ak Covid bi benn étude bu bu ndaw rek leen ngeen gis. waa xam nga foofu noonu pour loolu peut-être pense wax nañ ko mooy que ne dañu bëgg def étude bu exhaustive. mooy xam nga dañu tëjoon makkaan yi mm. te dañ doon def numéro vert di jot ku nekk fi nga toog sa kër di jot ay appel mm. li bëgg nag mooy ñu ngi doog a reprendre liggéey bi def recensement de tous ces appels de toutes ces orientations fexe nag def rapport boo xam ne day détaillé comme ni ko AGS comme ni ko boutique de droit di defee à chaque fois mm-hmm. mooy def des rapports yoo xam ne dañ koy jébbal euh, journalistes yi dañ koy jébbal ñi nga xam ne dañuy liggéey ak ñoom. Mm-hmm. mais mënuñu tëb nii rek comme ñu ngi doog a reprendre. Mm-hmm. di jox ay chiffres alors que defuñu euh, rapport détaillé bi nga xam ne mm-hmm. mooy prendre en compte lépp li nga xam ne dafa jëm ci aspect. ak prise en charge ak liggéey service bi nga xam ne daal en général boutique de droit yi dañ koy offrir population yi. sànq wax nga ko nee nga da ngeen jël ay support yoo xamante ne cest à di les réseaux sociaux ngir mener seen euh, sensibilisation wala seen communication est sociaux jàpp ngeen ni seen euh, communication boobu jot na cible bi. waa xam nga à travers Facebook à travers WhatsApp def nañ ay neex def nañ. utiliser nañ kano yi def nañ ay spot donc loo xam ne dafa war a jaar ci rajo yi jaar ci télé yi wala yi jaar ci canaux de communication yooyu ma la wax comme WhatsApp ak Facebook. Mm-hmm. di di waxtaan di lancer ay messages mais aussi yi jëm ci wàll droit des enfants yii jëm ci wàll euh, droit des femmes. Mm-hmm. yii jëm ci wàll sensibiliser sur les violences en période du Covid. Mm-hmm. mais aussi di def webinaire yi di waxtaan. di dajale ay acteurs yi nga xam ne dañuy yëngu ci wàll woowu pour di waxtaan ci lépp loo xam ne dafa jëm ci implication bi nga xam ne euh, Covid bi da koy am ci période de crise bi moo fi nekk. Mm-hmm. mais maanaam euh, ak cible bi ñi nga xamante ne ñoom ngeen bëgg a waxal est-ce que jàpp ngeen ni foofu. Mm-hmm. communication bi mën na jàll parce que tamit il faut reconnaître que ni du ñëpp ñoo am accès à internet. Mm-hmm. Euh, donc du ñëpp ñoo mën a accéder si message yi ngeen bëgg lancé lancer. waaw xam nga rajo communautaire yi xam nga ma rajo communautaire yi. Mm-hmm. te xëy na ñi jotewul ci ci euh, rajo communautaire yi bariwul donc moyen la canal la pour nga mën a passer message euh, bu ma nee Facebook WhatsApp tey jii presque foo dem rek nit ñi ñu ngi utiliser WhatsApp mm-hmm. donc yooyu tamit am na ay groupe yoo xam ne ñu ngi koy créer donc yooyu yëpp tamit moyen la yoo xam ne mën nga ci lancer message mën nga ci lancer spot yi mën nga ci lancer message yi nga ba xam ne bëgg nga ko véhiculer en cette période de Covid mm-hmm. te canaux yooyu wax dëgg yàlla AGS utiliser na ko pour mën a euh, jot cible bi nga xam ne moom la moom la doon viser mooy askan wi en général pour ku nekk jël say responsabilités jël les mesures yi nga xam ne mooy moo la ci muccal moo ñuy muccal ñun ñëpp mais aussi moytandiku lépp lu nga xam ne day propice pour andi xeetu métital yi est-ce que doon ngeen am ay feedback maanaam askan wi gis message yi ñëwaat ci yéen pour wax leen ni kat message bi jàll na jot naa gis lii def naa lii. waa macha allah jot nañ ay retours yoo xam ne nit ñi peut-être ci à travers les réseaux comme ni ma ko waxee ci la ñu jotee message yooyu ci la ñu gën a xamee lan mooy AJS. te wax dëgg yàlla ñëw nañ vers ñun te fexe nañ autant que possible pour jàppale leen. te ñenn ñu boobu ba tey ñu ngi suivre seen dossier. boobu ba léegi pour que ñu mën a am satisfaction. mbokk yi ba tey ñuy wéyandil seen émission bi nga xamante ni Raja Afia FM moo leen koy dégtal en collaboration ak waa AGS ba tey ñu nekk bride de droit bu Pikine di euh, sikk waxtaan bi ak soxna ma jigéen saar mi nga xamante ni mooy coordonnatrice bi euh, soxna ma jigéen ñu euh, ñëwaat ci li nga xamante ni moo di seen bureau yi ngeen xamante ni moom ngeen di liggéeyee mën naan xam ñaata bureau ngeen am ak fan la nekk. waa fi mu ne AGS mi ngi ci huit boutiques de droit donc ñaati ci dakaar yeneen yi ci région yi donc benn bi muy boutique de droit bi ñu nekk nii muy boutique de droit bu pikin ak boutique de droit bu Médina am nañ aussi boutique de droit bu nekk Thiès am nañ boutique de droit bu nekk euh, Kolda am nañ boutique de droit bu nekk Kaolack am nañ boutique de droit bu nekk Ziguinchor am nañ boutique de droit bu nekk Sédhiou ak bi nga xam ne moom moo ubbi récemment muy boutique de droit bu Kébémer mm-hmm. donc euh, juróom-ñetti yooyu la AJS am ñaar ci Dakar ak euh, juróom benn ci région yi. am lu tax ngeen def boutique yi foofu di ngeen nemmeeku ni foofu wàllum euh, violence basée sur le genre dafa fës wàllum fitna dafa fës moo tax ngeen euh, def boutique yi. waaw boutique yi nag xam nga choix bi day dépendre aussi comme ni nga ko waxee rek ci situation zone boobu. bu fekkee ne zone bi bëri nañ ay cas yu ñu recensé. Mm-hmm. am na ay ñettital yu fay am. xëy na ak ak yelleef doomu aadama yi am na loo xam ne war nañ ko ci mën a gën a taxawu. Hmm. donc boutique day ànd AGS day ànd ak i partenaire am. Hmm. ñu xool nan la ñuy defee ba problème boobu ay boutique de droit. donc looloo tax ñu choisir yenn ci zone yi. def comme première boutique bi Medina la nekkoon en 2013 si lañ ñëw ubbi boutique de droit bu Pikine fii ànd ceeg waa ministère de la femme. boobu ngeen nemmeeku woon ni bu Medina bi dong mënul accueillir euh, ñëpp wala. waaw dañu gis ne xëy na besoin bi ëpp romb na benn boutique boobu kese te mbébétu AJS mooy fexe ba fu askan nekk rek fii ci Sénégal ñu mën la jege ba heure boo amee soxla rek ñu mën ci taxaw comme ni mu waree. Hmm. ndax dem nañ ba fu nekk la nit doon jóge ci Sénégal di ñëw ji ci boutique bu Médina. donc tey 2013 ñu ubbi boutique bi ànd ceeg waa ministère de la femme comme ni ma ko waxee ak coopération italienne. Hmm. ubbi boutique bi. ak waa PIDES en 2016 mm-hmm. si la ko waa PASNEC euh, reprendre mm-hmm. donc euh, ànd ceeg AGS donc loolu moo tax avec d'autres partenaires aussi ñu dem fu nekk ci Sénégal ci cette région yooyu ma lay wax ubbi fa boutique de droit pour gën a jege askan bi ci lépp luy seen préoccupation ci wàllu métital ci wàllu euh, ak ak yelleef ci wàllu liggéey mu droit du travail la famille lépp loo xam ne daal jëm na ci wàllu yoon rek ñu mm. nga mën am koo xam ne dina la taxaw dina la gunge dina la jàppale ci lépp loo xam ne soxla nga ko ci mm-hmm. wax ko sànq am na jamono jon da ngeen arrêté woon wàllum liggéey bi mm-hmm. ndax jàngoro ji léegi mën nañ jàpp ni tàmbaliwaat ngeen liggéey bi waa tàmbali nañ liggéey bi fi mu ne ndax comme ni nga ko waxee depuis mars la feebar bi nekk mhm. boobu ñu ngi doon liggéey ñu dem ba ci biir xam ne nag peut-être ak mesure yi ñu jël jot nañu wàññi liggéey bi tëj makkaan yi mais kon wéyal liggéey bi mhm. ñu continuer avec le numéro vert di taxaw askan wi bi loolu weesoo aussi dem nañ ba xool na xëy na situation bi xaw na stable ñu reprendre ak suñu activité mhm. le 8 juin bi di gën taral liggéey bi gën a taxawu askan wi comme ñu ma ko waxee di def di continuer di leen appuyer au plan social ak yëpp mm. di leen jàppale donc le huit bi la ñu reprendre te boobu ba ci ci liggéey euh, ba ngeen reprendre yan matuwaay ngeen jël ngir aar seen bopp waaye it aar ñi nga xamante ne ñuy ñëw. waaw xam nga liggéey bi tamit comme ni ma ko waxee mënuñu reprendre rek te duñu jël ay mesures ndax comme xam nañ ne feebar bi jógewu fi mi ngi fi bu léegi. Mm. waaye mënuñu toog continuellement bañ a bañ a ubbiwaat màkkan yi. Ah, dañu dañu reprendre activité bi donc bu ñu reprendre activité bi nag jël nañ ay mesures mesures yoo xam ne mesures barrières lay doon mooy que ne port de masque bi day obligatoire ci boutique bi su ñëwee nga takk masque suñu aussi ñu takk masque ndax dinañ protéger suñu bopp waaye dinañ protéger aussi ki nga xam ne moo ngi ses si beneen bi aussi mooy am nañ ay point d'eau yoo xam ne pour lavage des mains la ci bunt yi dañ ko teg soo ñëwee balaa ngaa dugg si suñu bureau yi nga raxas sa loxo ba mu set boo ñëwee pompe jël gel hydroalcoolique bi ra laal sa loxo doo nag mën a toog ñu toog waxtaan donc fexe daal ba aménager waat suñu saal yi ba fexe ba nit ñi gën a mën a sorante aussi gën a mën a jël respecter distanciation sociale bi de un fexe tamit ku fi ñëw diñ fi ànd sécurité mais aussi booy dem di nga fi jóge ak sécurité mm-hmm. Mm-hmm. am na loo xamante ni mu mel ni jamono ji mooy problème mu sénégalais yi tax ba way takk der nekk ci mbedd mi ngir mën a veiller ci loolu muy port masque nan nga euh, jàngatee tey sénégalais yi ni ni ni ñu porté masque wala ni ñuy defee masque est communication bi si war a am la amul est-ce que dañoo xamul lan mooy masque lan mooy problème bi en fait selon yow. xam nga foo dem rek avec réalité socioculturelle yi day dafay joué. Hmm. xëy na fii Sénégal tàmm na woon sol masque. donc bu ko fay fay rek nga la solal masque fooy dem surtout ci les moyens ci moyen de transport yi xëy suñu bien-être moo tax parce que xëy na comme ni ma ko waxee dañuy aar suñu bopp aar ñeneen ñi ci des ndax promiscuité bi ñu bi ñuy bi ñuy dëkkee de un mais aussi suñu oto yi dafa xat déjà boo duggee ci oto peut bu njëkk ñu ngi ko doon respecté mais fi mu ne nii respecté tuñ ko donc mhm. distanciation boobu waroon ci oto yi amatul mhm. donc kon tey baax nit ñi ku nekk porte takk sa masque li nga ak sa bopp ak ki nga dendal mhm. donc dindi di ñaax askan wi rek ñu respecté ces mesures parce que man nee naa mesures yooyu defuñu ko pour lor ñu mais dañ ko def peut pour aar suñu wér-gu-yaram te loolu sax a tax AJS pour en doon ñëw en appui dañuy def ay masques yu bari di ko distribuer donc distribuer ko suñu réseau de parajuristes yi distribuer ko waa ministère mm-hmm. distribuer aussi si fépp foo xam ne boutique de droit la ñu doté doté leen ay masques pour que ku takkul masque personnel bi mën a am masque à leur disposition mm-hmm. mais aussi ñi nga xam ne dañ fiy ñëw bu ñu amulee masque ñu mën leen jëkkati masque jox leen ko mm-hmm. mais aussi doté de gel hydroalcoolique ak ay points de lavage ak yooyu yëpp eau de javel madara yëpp aussi teg pour que ñu mën a jël lépp lu nga xam ne sécurité la pour mën a mu suñu bopp ak ñi nga xam ne moom la ñuy waxal ndax xëy liggéey bi ñu bi ñuy def wax ak wax la donc xam nañu ne salive ak leneen lépp propice na pour pour propager maladie boobu kon nañuy dañuy gën a ñaax askan wi rek ñu respecter les mesures barrières parce qu'il y va de notre santé. ak ah, seen liggéey bokk na ci di promouvoir la femme maanaam euh, di jëmmal ak jox doole jigéen est ci matuwaay yi ngeen jël di defar ay masque di joxe defar ay saabu di joxe ndax jigéen ñi ngeen jël ngir ñu liggéey ci ngir ngeen leen mën mu nekk seen njàppandal aussi tamit ñoom it si wàllum Covid bi wala dafa nekk ay euh, matériel yoo xamante ni fi ngeen feneen ngeen koy utiliser. na loo xam ne euh, partenaires yi ñu ko jox am na loo xam ne aussi AGS moo ko joxe jënd ko distribuer ko donc gis nañ ne yi ñu joxe muy céréales yi nga xam ne distribuer nañ ko yooyu yëpp fii lañ ko defaree suñu famille ñoo ko defar donc ñu distribuer ko population yi foofu noonu gis naa ne jàppandal la tamit ci jigéen ñi nga xam ne ñoom ñooy yëngu ci transformation ndax ci distribution yi am na ay kit yoo xam ne dafa am céréales am mboq am bëggul am araw am yooyu yëpp donc loolu yëpp tamit fii lañ ko liggéeyee ay groupement de femmes yoo xam ne ci biir réew mi la ñoo ko defar mm-hmm. donc tey bu fekkee ne jëlaat nañ ko distribuer ko population bi je pense que ñooñu gis nañ ci seen bopp. Mm-hmm. ci groupement de femmes yooyu sax si laay wax ah, parce que gis nañ ni jigéen bëgg nañ mbooloo bëgg nañ di daje bëgg nañ di waxtaan tey lan nga leen di wax pour lancer leen un message ngir ñu mën a moytu Covid ak wàllum ndaje yeeg tere nañ ko mais ñàkkul am na jigéen yoo xamante ne ba tey ñii ñi ci mbir yooyu. waaw comme ni ñu wax rek ñu respecter les mesures parce que même bu fekkee ne restrictions yi fi nekkoon levé nañ ci lu bari tey teewul feebar bi donc dañu war a apprendre à vivre avec la maladie mais en respectant aussi leen mesures qu'il faut mm-hmm. donc sur ce plan là dañu gën a conscientiser les femmes di wax ne propreté moom dafa bokk ci lépp mm-hmm. donc kuy def transformation dafa laajte cet waaye aussi ci ndaje yeeg ci ci génte yeeg ci xew yeeg ci tuur yeeg lépp lu mën ci doon lépp luy andi ndaje daal nañu fexe ba limité ko su fekkee ne mënta ñàkk ñu limité ko mais aussi ñu fexe tamit bu ñuy dajee ñu respecté mesure di nga xam ne dina tax ñu mucc ci ci ci feebar bi. Euh, seen liggéey bi tàmbali waan ngeen ko daawoon ngeen def ay causerie di dajale femmes yi di waxtaan ak ñoom léegi loolu mënta nekk daje bi dootul mën nan ngeen fas yéene def ngir waxtaan ak femmes lépp mu ngi fi comme ni ma la wax euh, groupe yaa ngi fi donc intervention juriste yi day doon ci groupe yi day doon ci ci ci réseau boo demee ci réseaux sociaux yi tamit ñu ngi intervenir bu baax soo demee ci webinaire yi ñu ngi intervenir bu baax donc fi mu ne nii peut-être ndaje yi ñu doon def ci koñ yeeg yooyu am na yoo xam ne mënagul reprendre mm-hmm. te ñu ngi ci mais bu ñuy daje aussi dinañ fexe ba euh, jël toutes les mesures qu'il faut ba respecter les les les les mesures comment dire les règles yi nga xam ne teg nañ ko pour lépp loo xam ne day day day ci feebar bi mhm. mais pour le moment causerie yi reprendre bi ñu reprendre aussi loolu dañ ciy bàyyi xel parce que tamit covid du tax ñu ñu bàyyi suñu liggéey wala covid du tax du ñu xalaat nan la ñuy defee lépp lu jëm ci prise en charge loolu ñu ngi ci chaque jour di continuer les les sessions di renforcer suñu suñu suñuy membres pour que ñu mën a fexe ñu ñuy taxawee ci ni gën a rafetee ci prise en xam ne population yi dañ koy soxla. Euh, soxna ma jigéen liggéey bi waxoon nga ko sànq leeral nga ko ni taxawoon na mais boobu la jamono est-ce que partenaires yi toogoon nañ ànd ak yéen ci situation bi bi mujj am noonu est-ce que du duñu ngeen ko ak ñoom. waaw gën ko ak partenaires yi parce que comme ni ma ko waxee rek partenaires yi ñoom ñoom comme ñun eh, ñu bàyyiwuñ liggéey bi mu ngi ci woon covid am na naam ralentir na suñu liggéey mais tamit teewul ñu ngi woon di liggéey ba tey mm-hmm. ñu woon di def référencement yi parce que comme ni ma ko waxee y'a un système de référencement qui mm-hmm. existe boo xam ne ñun au niveau de l'AGS ñuy fexe te mm-hmm. acteurs yi nga xam ne surtout fii à Pikine ñi nga xam ne dañuy yëngatu ci domaine yëpp muy wàll santé muy wàllu sécurité muy wàllu justice dañuy liggéey ñoom pour assister population yi dañu continuer woon sa travail bi nga xam ne ko mm-hmm. mooy bu ñu jotee cas su dee mënuñu def médiation wala médiation effectuée dañuy référer vers la police wala dañuy référer vers le comme ni ma ko waxee Euh, maison de maison de justice wala ñu référer vers euh, tribunal avec le procureur wala ñu référer au niveau de la maison rose wala AIMO wala yenn action sociale donc toujours noonu lañu doon def continuer entre acteurs ñuy fexe ñu ñu mën a def rek pour pour apporter suñu assistance ci population bi. Euh, léegi selon yow yan action lañu war mën a mëne moo xam état wala population wala prestataire de service yi ngir jàngoro ji ñu ngi ko fay jëlee. waaw xam nga état moom lu jëm ci wàll état ci mesures yi wala ci action yi nga xam ne mën na ko def ci Covid bi ci jëm ci wàll VBG euh, benn ci yooyu rek mooy fexe ba lépp luy question de protection jëm ci jigéen jëm ci xale ñu mën ko intégrer pleinement ci ci plan de riposte yi nga xam ne euh, riposte plan de riposte national yi nga xam ne teg nañ ko beneen bi mooy partenaires yi tamit ñu leen di ñaax ñu gën a dolli gën a renforcer soutien bi nga xam ne ñu ngi koy apporter gouvernement bi mais ñu ngi koy apporter aussi euh, ay ay kuréel comme AGS comme yeneen yoo xam ne danay xeex ci àq ak yelleefu doomu aadama di jàppale askan yi lii ci jëm ci communauté bi moom mooy aussi ñu fexe rek ñoom aussi ñu en leur sein parce ñun ñu ngi aar ñu ngi sensibiliser ñu ngi wax état mi ngi def mais aussi communauté bi am nañ ci rôle mooy ñoom aussi ñu fexe ba doon ay ay ay sentinelles des sentinelles d'alerte et de veille ci lépp lu nga xam ne euh, violence la jëm ci ci askan wi jëm ci jigéen ñi jëm ci mag ñi ci métital bépp xeetu métital forme métital boo xam ne ñu ngi koy dund rek communauté bi doon ci ay sentinelle doon ci doon ci alerte doon ci veille donc moo tax ñu bàyyi nëpp nëppal bi su ma waxee loolu beneen bi aussi mooy ñun ñi nekk prestataires yi ñun ñi nga xam ne ñooy joxe service ñu fexe ba assurer continuité suñu suñu liggéey boobu naam du yomb nag mais fexe ba assurer continuité de service de de prévention et de prise en charge holistique des violences basées sur le genre. Mm-hmm. mooy lépp lu jëm ci wàll aspect comme ni ma ko détaillé woon sànq. Mm-hmm. prise en charge ko judiciaire sociale euh, médicale psychologique. Mm-hmm. yooyu yëpp ñu fexe ba lu ci war te victime bi soxla ko rek mu fexe ba war ko mën a assurer comme il faut. beneen bi aussi toujours comme suñu euh, sama njëlbeen wax mooy mooy tamit. continuer la chaine de prise en charge chaîne bi ñu fexe ba bañ ko romb donc loolu daal foog naa ne suñ ko defee ku nekk def ci li nga mën foog naa ne euh, dina am une certaine prise en charge wala dinañu lutter efficacement contre les VBG en période de Covid. Euh, am na loo xamante ne am na tamit muy jigéen ñi nga xamante ni ñooy victime yi euh, wala sax góor wala ndaw ñi nga xamante ni duñ nangu dem boole ji maanaam di dénoncer le fait que duñu duñu duñu dénoncer wala duñu dem wax seen métit lan nga leen di wax ngir ñu mën a taxaw seen seen problème. waa xam nga gis nga violence tamit bu mu bëggee mu jóge fi nañu dindi lépp loo xam ne nëpp nëpp la nañu dénoncé nañu dénoncé tant que wu wuñu rek justice du mën a am. donc li muy def moom mooy di sensibiliser nit ñi di leen wax ne bu mbir amee bu violence amee ñu dénoncé. Mm-hmm. ndax boo dénoncé rek je pense que dina fi jóge. Mm-hmm. te problème mu Sénégal problème mu banlieue bi mooy que ne dañu mën nëpp nëppal mbir day ñu di ko nëpp nëppal mm-hmm. viol yi li tax muy yokk loolu la mm-hmm. donc violence conjugale yi aussi loolu la jigéen ñi ne naan lu muñal muñal muñal alors que am na fu muy yem mm-hmm. dóor bokkul ci ci sëy saaga wala métital wala ñàkk a toppatoo bokkul ci sëy ak ci ku mënta jóge ci waaye ci ñaari way dencante yi métital sa njaboot du yoon xale dañ koy aar dañ ne doom danga koy jur waaye danga koy yar danga koy yiir danga koy yee

donc kon xeetu métital yi nga xam ne ñu ngi koy def askan yi di ko def jigéen ñi di ko def xale yi euh, tant que duñu dénoncer rek peut-être njeexital bi ñu soxla muy saafara bi dina yéex am kon mbir amee nañu dem dénoncer nañu dem porter ji plainte pour que justice mën a mën a activer mën a def li nga xam ne moom moo ci war. soruma jigéen waxtu bi xamee ni dab nañu ñu bàyyi la nga tàggoo waaye lancer sa message ngir euh, jamono ngir lii di Covid 19 askan wi fexe ba nu mu génnee ci biir réew mi waa di wax na rek euh, ñun boutique de droit bu Pikine ñu ngi fii pour askan wi euh, fas yéene di leen indil suñu expertise te di leen jàppale de façon bénévole donc du lundi au vendredi 9h ba 13h ci suba si ak 15h euh, ba 17h ngoon si ñu ngi fi te au-delà de l'assistance judiciaire de boutique de droit bi dina andil jigéen ñi ak xale yi ñi nga xam ne dañu nekk ay victimes mhm. ci violence assistance boo xam ne c'est psychologique c'est médical et au besoin ñu fournir leen hébergement d'urgence grâce à nos partenaires ak avec un système de référencement mhm. di wax ne daal que nañu fexe ba lépp loo xam ne dañu di violence rek ñu di ko dénoncer et ñu di ko dénoncer à temps mhm. te xam ne y a des acteurs qui sont là pour les pour di di leen di gunge ci lépp loo xam ne eh, jublu nañ ko jëm ci wàll yoon mm-hmm. di ñaan yàlla aussi feebar bi jóge fi mm-hmm. ñu mucc ci mucc la ci mm-hmm. donc te di wax bépp sénégalais bépp sénégalaise nañu respecte les mesures barrières les les règles yi nga xam ne teg nañ ko pour mën a aar suñu bopp di ko jaajëfal moom ma jigéen Sarr moom mooy coordonnatrice boutique de droit bu pikin tey moom lañ doon àndal si waxtaan bi nga xamante ni ñu si doon waxtaanee moo di wàllum VBG maanaam violence ak euh, lépp loo xamante ni fitna la wala métital bu ñuy tekk si nit rawatina jigéen wala wala xale mm-hmm. ak jamono ji nga xamante ni mooy di euh, coronavirus du Covid 19 euh, ñoom waa AGS ban taxawaay lañ ci am wàllum prise en charge victime yeeg wàllum rôle bi nga xamante ni boutique de troit yi ñu ngi ci Euh, am ci boobule xeex déglu ngeen leeral yi nga xamante ni indi na ko ci mbokk yi ñu leen di jaajëfal euh, ci déglu bi di leen jox rendez-vous si beneen émission incha allah. Tous les enfants ont des besoins spécifiques et chaque enfant a des droits fondamentaux en matière de soins, d'éducation, de justice, de protection sociale. Partout, les enfants subissent au quotidien toute forme de violence et en cette période de pandémie, nous sommes plus exposés. Ne négligez pas nos droits durant cette période de Covid. Protégez tous les enfants contre toutes les formes de violence physique, sexuelle, psychologique, négligence, Notre opinion n'a pas été prise en compte durant cette période. La covid ne doit pas confiner nos droits, respecter nos droits fondamentaux. Droit à la santé. Droit à la formation. Droit à l'égalité. Droit à une famille. à la protection. Droit à la participation. Droit à l'éducation. Droit au loisir. Droit à l'expression. Les enfants, la GS and save the children tous ensemble pour mettre en avant l'intérêt supérieur de l'enfant durant cette période de Covid.